mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qurril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa radiyallahu an sayxina wa rajaina wa sanadina hamid lawal islam al mujaddul akbar a cheikh ahmadou bamba nafa'ana allah barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a safoo di seetaan seen télévision mu fatul Bichri TV waaye di fi seetaan seen émission bu am solo bii nga xam ne mooy fajaru Bichri ginnaaw bi nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonanteem bi sallallahu alayhi wa sallam di sandaat Cheikh Ahmadou Bamba di gën a daylu ak a wékku ak a yaakaar ci moom te ñaanal xalifaam bi sëriñ Sidi Muxtaar suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko balem naanal lislaam naanal ko sëriñ Tuubaa lépp mu màggal ko sagoom waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa généralu Baye Fall waaye di ko ñaanal sëriñ Abbas Mbàkke xalifa borom Daaru Muxti waaye di ko ñaanal sunu bunt ci moom sëriñ Abdul Xuddus Mbay di ko ñaanal jullit ñëpp ak kilifa yëpp mboolem fi waaye man a tooge ci lalabul lislaam waaye nag di ñaanal jullit yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo safoo seen télévision Mafatihul Bichri waaye di ñaanal taalibe yi nga xam ne ñoom it ñoo safoo Mafatihul Bichri TV waaye nag safoo émission bii nga xam ne mooy fajaru Bichri maa ngi koy dellu di ñaan ni ma ko daan ñaane yàlla na ko fekk ci barkeb turandoom bi mooy saa yoo jëlee sab commande ubbi sab télé muy mafatex mooy ubbi saa yoo seetaanee programme ba nga dajeel rawatina fajaru bisri muy bisri ak mbég waaye boo seetaanee mbég ma nga yëg ni la nga seetaan jànge nga ca jële nga ca loo xam ne dana doy sëkk kóolute sa diggante ak moom muy am nu waaye kóolute ga boo ko dundee da nga yëg ni la la cay fekk mooy janna te mooy àjjana te boo ko boolee mooy mafatihul bisri wal amni wal janna yàlla na ko sunu borom def bi jaahi rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ci barke bal tak fi ni kifaayatan tasorru min xable xas di ku la may duru mbokk yi xam naa ne damay def tamhid bu yam rek mooy xam ngeen ni téere bii ñuy jàngale muy ten tanbihul mar'a dafa bokk ci téere yi nga xamante ni mbokk yu bari dañ ko daan laaj ci fenn fu nekk amaana def nañ ko sax ci ay son yu bari waaye teewul ñu ko laaj moo tax ñu koy indi ci fajaru bisri ngir ñu bari man cee jariñu te xam ngeen ni li muy jàngale bokk na ci li nga xamante ne moo ngànk société bi te muy jigéen waaye dana baax it ñu xam ni jigéen buñ ko dee jàngale mooy dafa bokk ci keno yi nga xamante ne ñoo yor diine ji te it xam ngeen ni sëriñ bi lépp lu mu doon ñaan rek xam ngeen loola lu baax la te boo demee ci xasida ak Matlabul Fawzayni waxam naa ko ci leçon yee jàll sëriñ Tuubaa da doon ñaan wa sawjatan saalihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mooy soxna su baax soo xam ne bu léegi daf lay dimbali ci diine kon soxna yi ñu ngi leen di dénk dénkaat sunu bopp ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne noonee ko Sëriñ Tuubaa waxee woon rek jigéen balaa man dara daa muñ ba pare jekki gis nga noonu ñu leen ko waxee woon sëriñ bi daan na ko dénkaane lu baree baree bari te xam ngeen yonent bi salaa salaam dégg ngeen xaddis boobu ci jàngale bee weesu bare na yu mu andi ci wàllu jigéen. te yërëm gum yërëm jigéen ak jox gum jox gëdd jigéen rek moo ko waral waaye gis ngeen xàq jigéen ni nga xamante ni bari na lool te ñu baree bari ci góor ñu sàggane ko waaye àq yi war jigéen ci ci borom këram doon yu lu lu baree bari te jigéen ñu bare sàggane ko tey jii ci leen fas yéene ñëw waaye li ñu weesu nii rek dafa mel ni dañ ci def benn taaliqaat bu ndaw mooy indi gis-gis yi nga xamante ni am nañ ko ci jigéen jigéen ni bindoo wala li ëpp ci moom mooy woyofum xel loolu yàlla dogal waaye loolu di lu am solo ci moom ndax li tax euh, mooy loola sunu boroom moo ko ko mooñee waaye loola mooy tax ñu mën koo yor loola mooy tax mën ko yor fi ne néew na loolu lay gis jigéen ñu mën ko yor te fekk ko yor moom moo ko sutum xel loolu néew na kon loolu moo tax sunu boroom ca cosaanul xel ma rek mu defe ko noonu ba tey wàllu kàttan góor moo ko ëppale te loolu boo xoolee xam li tax góor ëppale ko ko ndax moom jigéen kenn sant ko jihaad maanaam kenn néew ko yoral fital dem di xeexi wala benn liggéey bu diis ci yaramam lu dul liñ ko liñ ko liñ ko sant mooy toogal sa kër lu la sa jëkkër maanaam sa boroom kër digal te mu dëppeeg lu neex yàlla nga di ko def tey dabu bu bànnee xam sa kem kàttan loolu euh, xam ngeen ni bokk na ci ndénkaan yi nga xamante ni sëriñ Touba daan na ko dénk jigéen ñi boo demee ca wasiyatu soxna Penda Diop Serigne bi da ko doon wax ni wa alami bi an na jihaada niswaane fi taatil aswaaji dunal miria na nga xam ne jihaatu jigéen mooy topp sa boroom kër doona wera walis ngay weranteeg moom waaye ca jàngale ba daf ko wax ni ko boroom kër bi nga xamante ni daa topp yàlla ba pare di ko topp lu borom kër booba laa wax borom kër bi nga xam ne daa ragal yàlla ba pare di ko ragal lu borom kër boobu laa wax waaye waxul borom kër boo xam ne la muy digle lépp boo ko xoolee ci bakkanam la jëm waaye la muy lépp it boo ko xoolee la jëm waxu ko nga xam ne dénkaan booba day dénkaan bu am solo boo xam ne jigéen ju nekk ci néegub sëy rek war ngaa fexe ba incha allahu taala nga fexe ba dénkaan boobu nga teg ko sa kanam di xool la ci Serigne Touba wax soxna Penda Diop te ku ne xam na ne dénkaan boobu dafa dafa dafa dafa maasale mboolem jigéen ñëpp incha allahu taala xëy na nañ ko boole yeneen dénkaan yoo xam ne ci soxna la jëm beneen yoon ñu indi ko ber ko muy faja fajaru bisir boo xam ne dañ koy ber spécial ci ci ci jàngale ci lu demee noonu euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa diggaleen soxna ni ko sa borom kër bu meree donte meroo na nga mer merlu dégg nga ko loolu dafa bokk ci àqam ngir mu ngir mu jort ni euh, dab bànnee xam moo tax ngay mer-mer lu waaye sax meroo woon ba tey gis-gisi jigéen bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni sa borom kër bu la woowee loo sonn sonn na nga dem wuy ji ànd ak xar kanam bu leer tey muuñ wax ni yonent bi sallallahu alayhi ni bu bëggee wéet ak yow na nga dem defaru donte waxtu woowu soxla woo ko ndax li tax moo yonante bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dani ida daa rajulun imraatuhu ila firasihi fa abat fa baata wa huwa ala gadbaan laanatul malaikatu ata tusbihu xadis boobu ahmad moo ko soloo jële ko ci abi hurayra góor gu woo soxnaam ngir bëgg a booloog moom mu bañ góor ga mer góor ga mer ngir loolu ba bët di set malaaka yi dañ koy rëbb malaaka ya mooy malaaka yërmande yi maanaam dañuy rëbb jigéen jooju nga xam ne borom këram da koo woo ngir soxla ko mu jox ko ngànt kon gis nga ni jigéen lislaam sant ko lu diis waaye moom ci xelam mu gàtt day bàyyi li ko lislaam sant ci mbir yi di fekk maanaam nga xam ne yu woyof la fekk yu diis yoo xam ni kenn sant ko ko te da koy tàbbal sawara mu di ko def te loola bu ko bàyyiwut moom ci boppam moom xam na ne lii su ko bàyyiwut loola bokk na ci li ko yóbbu sawara gis na ne julli léegi ñu néew ci ñoom ñoo koy def julli ñu néew ci ñoom ñoo koy def ñaare ñi ko ciy def ñi ci ëpp boo ko boo ko boo ko ñi ko ci ëpp mooy ñi am problème wala ñu am njàqare te ku ne xam na ne borob julli bokk na ci li ñu war a fay borob koor bokk na ci li ñu war a fay te bu fekkee sun borom daf laa tawfiixal yow jigéen ji nga mën a leb julli te julli googa doo ko fay mooy jigéen bu tolloo eh, ci période bi am lu mu war a gis foofa may nañ ko julli yooyu yëpp du ko julli ba kera set te du ko fay waaye su dee koor nag da koy fay lépp seen boori koor it duñ ko fay te loolu di lu yomb te ci gis-gisu doomu aadama rek ci ñoom amul kenn koo xam ne ñi ma naa am borom ndawtal te fayu waaw waaw doonte da koy leb ndawtal ga bu jotee dana ko fay loola dara loolu boo xoolee dara gënu koo nekk xel mu gàtt ndax ba ñuy fay ndawtal am na luñ fayul lu gën a farataw te mooy koor gi nga xamante ne amel na ko amel nañ ko suñu borom wala julli gi nga xam ni dañ koo amoon te nanguñ koo fay bokk na seen xel seen xel mu gàtt moom jigéen sopp gi ñuy sopp seenu yaram ci melokaan wi leen suñu borom bindaleen te mu tudd xeesal bokk na ci li muy jur mooy der bu woyof ak gaaw a saxe boo faatoo nga xam ne bala ñu laa suul mën ngaa tàmbalee xeeñ su ko defee xel yi li muy daal di dem mooy kii de daa soppi aw meloom loola di njort lu ñaaw booleeg yóbbaale def lu xaraam lu fis fa yàlla sunu borom boo taxawee ëllëg fa kanam sunu borom boo taxawee ëllëg fa kanam sunu borom mu ne ko lu tax nga sopp saw melo ba mel nii ni ma la defoon dalaa neexul ba nga koy soppi yàlla da ko naa ma ne tey damay bàyyi sa bànneex te mooy àjjana tàbbal la sawara ndax ba ma la nee nii moo ma neex ci yow ma bindale ko dangaa bañ dem soppi saw melo moo tax tey ji yow sa bànneex mooy dem àjjana waaye dama koy bàyyi tey yóbbu la wara loolu jigéen ñii xeesal nañ ko bàyyi xel wax naa yi mi sabab mooy bokk na ci der bu woyof der bu gaaw a yàqu bokk na ci ki xeesal bu faatu wan léegi léegi buñ ko lu waajtaay mu tàmbali xeeñ te bu xeeñee nit ñi dañ koy ñaawe njort te njort loola moom moom la yóbbaale te loolu mën na ko yóbbu sawara yàlla na suñu borom musal boole kook la ca gën a yéeme mooy yàq alal gi nga xamante ni moo nekk ca loola yàlla suñu borom musal bu ko defee foofa du man a bu ko suñu borom waxee loola du mën a lay maanaam du man a lay naan dama doon topp sama borom kër ci bànneex ndax am na góor ñu doy du ñoo xam ni ñoom sax waxuma la soxna yi waaye ñoom ñoo digal seeni soxna ngir ñu sopp seenu yaram waaye loola sunu borom nee na du doon aw lay ci yow ndax waxal naa sama yonte bi ni ko waxal bindeef fi sunu borom ni leen laa taata li maxluuqin fi taasi fi maasiyatil xaaliqi laa taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliqi kenn amul sañ-sañu topp bindeef ci mooy yàlla sunu moom subhaanahu wa taala te sax li ëpp ci ñoom buñ koy def duñ ci diisoo sax ak seen borom kër am na ñoo xam ne seen borom kër da caa mun da caa mun dara te jigéen li muy def war na cee diisoo ak borom këram ba noppi door koo def waaye ñoom seen moroomi jigéen la ñuy waxtaanal ñu leen di wax lu amul njariñ fii ci àdduna sàkkaa fañ dem ci àllaaxira ndax ñaare lu ci ëpp jigéen ji koy def jigéen ni moom moo koy orienté diw bi baax na te ku ne gis na jamono bi léegi ni mu demee nga xam ne diw yi ñuy diwoo sax amaana saytuwuñ ko ci wàllu santé ba mu baax ci doomu aadama waaye lu doy waar la loo xam ne mo ñaare jigéen ji koy def moroom jigéen a moo ci dugal ba tey bokk na ci conséquences yi am te ñu war koo moytu te jigéen ñi bari ëpp luñ koy def dañuy toog ci ay barab yoo xam ni nit ñi dañ leen di romb su ko defee ñuy wax luñ wërta wax saa su ne te loolu di loo xam ne lu xew la ba daj àdduna bépp daanaka waaye yaakaar naa ne ku xool sayyidatuna Aïsa radiyallahu taala anha muy soxna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jigéen gi ko romban mu a jigéen gu gudd mbicc dee ngi nii dana doy sëkk ak waare ndax ndax li tax ndax ba jigéen ga rombee mu wax ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko ne mu jéem a wàcc mu wàcc génn lu mu deret yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bu reesoon li ngay bokk ci man lépp mënulaa tee dem sawara kon nag lii nag war naa tax jigéen ñi dellu gannaaw xool leen lislaam digal ñu koy def te bañ a wax ne sunu borom bari na yërmaane rek daal di toog ndax sunu borom subhanahu wa taala moo wax ni wa rahmati wasiat kullu shay'in fa sa aktubuha lillazina yattaquuna wa yutuuna zakata wallazina bi ayatina yuminuuna sama yërmaane yaatu na lool ba daj lépp waaye ñi ma koy bindal mooy ñi ma ragal mooy ñi nga xam ne dañ maa ragal di julli di woor di natt asaka boole gëm gëm gu wóor kon wërta toog loxoy kese ba noppi di yaakaar ak pay sunu boroom nag mën na lépp ndax yonent bi sallallahu taala sallam nee na xufirat li amraatin mumisatin marrat bi kalbin ala rasi rakiyin yalxasu xat kaana yaqtuluhu atasu fa nasaat xuffaaha fa aw xasathu bi ximaariha fa nasaat lahu min al maa'i fa xufira laha bi saalik buxaari yu moo ko soloo jële ko ci abi xurayra am na jigéen goo xam ne am njaalokat la woon bokk ci banni Israayila la daama sa romb ab xaj ci teen muy yalkat ngir mar mu xam ni xaw tuuti mu dee mu dikk summi aw botam dagg ci ak musóoram xëccal ko lu mu naan sunu borom jéggal ko ca loola kon loola mën na noo gis ni sunu borom yërmandeem daa yaatu bu baax a baax waaye nag ñeel na ña ragal yàlla ba pare di natt asaka gëm yàllaat gëm gu wóor waaye di julli aq yi war góor ci soxnaam muy loo xam ne góor ñëpp nag war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax jigéen it sëriñ bi daa wax ne joxuñu la ko ngir mu doon sab jaam di la jaamu kon dafa am àq yoo xam ne dafa war góor ci digganteem ak soxnaam la ca jëkk war mooy ab dundam ak ak can bokk na ci àq yi war mooy joteek moom ci laab gune benn yoon loola am nañu ko wax am na ñu ñeenti weer yu ne war na ca joteek moom Euh, waaye borom xam-xam yi dañoo maase ne ndegem ñoom lislaam santul amul ay fan yoo xam ne dane fan yii kat ci ko war a def maanaam amul benn fan yoo xam ne lislaam dane fan yii kat ci nga ko war a def góor gi mooy seet li nga xam ne bu ko defee dana tax jigéen ji euh, fegu fegu maanaam fegu nga xam ne du soxlaa du loola dootu ko soxla fenn la ko borom këram di jox dana ko doy sëkk maanaam jigéen ji dana fegu te du ko soxla faneen ndax loolu li tax ñu wax ko mooy jigéen ñi dañ cee yemul jom yemunu ci ak bëgg ndax nañ ko waxe woon yonent bi salaa salaam moo xam ne bànneexub góor ak jigéen bi ñuy séq maanaam ji bu dee téeméer jigéen ji juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la ci am ci bànneex góor gi moo ci am benn moo tax ñuy digal góor gi mu diisoo ceeg soxna si ba nga xamante ni maanaam daana tax du ko mën a wuteeti fenn loolu bokk na ci àq yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon digle war góor gi it muy bañ a wax dara ci soxnaam ci biir ci mbiri biir loola euh, moo maanaam lu lu am solo la loo xam ne dañuy tere nit di ko def maanaam lépp loo xam ne mbiri biir la dañuy tere góor mu di ko génne ci biti teyit muy suturaal boppam bu dee booloo ak moom looloot soññee la boo xam ne lislaam moo ko santaane teyit moo ko bëgg Seydina Alin karamallahu wajhahu dégg nga noonu mu ko waxe woon doom ji mu waxan ni na ngeen moytu nangam ndax soo ko defee boo dee sëy ak sa soxna di wax soo bu yàlla dogalee doom sosu ca am muuma lay doon soo ngeen dee xoolante ay awra yàlla dogalee doom sosu ca gumba lay doon ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu doon yoo xam ni e, kenn ku nekk war na koo bàyyi xel ndax day àq yi nga xamante ne daa war góor ci soxnaam war na ko it muy boolook moom ci fu doom mën a amee loolu lislaam moo ko santaane tey wax ñaan gii bala moo boolook moom bismillahi rahmaani rahim allahuma janib na sheytaana wa janibi sheytaana ma rasaxnaahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku ko wax booy booloog booy booloog sa soxna boo ca amee doom saytaane du ko mën a lor seytaane du ko mën a lool loola ba tey boo demee ci xurataay ni Serigne Souhaïbou Mbacké wax na ci lu mel noonu waaye ñaan googu moo gën a guddu te moo gën a matale ba tey dafa wax ni allahumma bismillahi rahmaani rahim allahumma jannibna saytaana wa janibi saytaana maa rasaqtana allahumma arsuqni min hazihi waladan salihan wajhalhu taqiyan naqiyan laysa fi xalqi siyadatun wala nuqsaan wajalu xaqibatahu wa aqibatana ila gayrin ya arhamar rahimin ba tey war na ko muy yemale ay soxnaam kon ki nga xam ne dafa am ay soxna yu bari lislaam da koo dé da koo da dénk muy yemale ay soxnaam kem kàttanam looloot bokk na ci li nga xamante ni euh, lislaam da koo góor muy àq yi war ci digganteem ak soxnaam ba tey àq yi war jigéen ci jëkkëram maanaam àq yi nga xam ne war na jigéen ci borom këram maanaam jigéen am na àq yu war ci digganteem ak borom këram jigéen ji war koo def yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na law anna sawja zaala min ahadi min xarya dammun wa min axari shadidun fa laxasatul maru maa adat xaq sawjiha loola di lu am solo nee na jigéen bu fekkan borom këram benn bakkan bi day yol ak deret bi ci des yol ak dët mu teg ci gémmiñam di ko màng ba mu jeex nee na du tax mu jot àqi borom këram maanaam du tax mu ak mu matal àq ji war ci digganteem ak jëkkëram kon danga gis ni euh, génn jigéen mënta matal àq ji war ci borom këram kon la ca war rek mooy gën caa góorgóorlu te la nga ca man sa kem kàttan nga di ko def ndax génn jigéen mas naa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj àq yi war jigéen ci jëkkëram mu ne ko mooy mu bañ a woor mu mu mu mu mu bañ a woor benn bis lu dul ci ndigalam maanaam benn bis waru koo woor benn bis képp waru koo woor lu dul ci ndigalu borom këram muy kooru ngàtt nga nga xam ni kon dañ ne bu dëgëree bopp sax ba ba koor kooru ngàtt nga koor googa borom këram mooy moom tuyaaba ji bokk na ci àq yi war soxnaat ci borom këram mooy waru koo tere boppam donte ci kaw bantuk teg la nekk maanaam borom këram fu mu ko woo fu mu ko woo fu mu mën a ne donte ci kaw bantuk teg bantuk teg mooy mooy mooy ci kaw aw fas donte fa la ne sax bu ko fa wooyee soxla ko waru koo tere boppam muy muy muy muy lu doy waar nga xam ne euh, gis nga noonu ma ko waxee bu demee sax ba woor ci lu ndigalu borom këram ci bëccëgu maanaam ci ci ci ci genn benn bis boo xam ne du koor boobaa tuya ba jëm ci am lépp borom këram moo koy am moo koy moom te it mu benn génn ci lu ndigalul jëkkëram maanaam soxna wërta génn lulul da cee diisoog borom këram saa su génnee ci lul ndigalul jëkkëram malaaka yërmande yi ak malaaka yi mbugal yi yëpp dañ koy rëbb ba keroog muy dellu si yow mal xiyaam li ñu jëkk laaj jigéen mooy ak julleem ak àq jëkkëram lii ñu wax lépp boo demee ci téere bu ñu wax Tanbiihul Xaafiliina bu Abu Lays Samarxandi yu di nga fekk mu di ko fa jàngale su ko defee kenn wërta jàpp ne léegi mbir yi daa lajj ba génnub jigéen woyof ndax ñu bari dañ koy laaj dañuy laaj ndax jigéen mën naa tukki wala yu demee noonu wala yu demee noonu waaye lépp lu mu ca mën a doon lu jamono yàqu-yàqu du tax mu la yàlla dagalalan araam waaye du taxit la yàlla xaraamalan dagan mukk munta génn lu dul da cee am ndigalu borom këram waaw ndax bu ko defee du ca am lu dul bàkkaar ndax la xaraamoon ci jamono yonte bi ba tey jii la gën a xaraam la dagaloon naka noonu noonu la ko sëriñ Tubaa waxe boo demee ci téeram bi ñu wax fathul manaan fi jawaabi abdul latif noonu la ko waxee kon loolu li nga ciy dégg mooy nit ki dafa war a góorlu ci digganteem ak boroomam waaye góorgóorlu ci digganteem ak boroom këram nga xam ne la ko war lépp ci jaayante dana ko def la ko war lépp ci topp dana ko def ndax waxan naa ko ca njëlbeenu téere ba maanaam boroom kër euh, day ab sàmm te soxnaam la dénk ak càmmam soxnaam la dénk ak sàmmam kon nag yow mi nga xam ne dañ laa sàmm war ngaa góorgóoru ba lañ la dénk nga fexe ba sàmm ko te jigéen ñi loolu laay tëj sama sama émission nañu góor góorgóorluwaat ci borom kër yi lii am léegi xam ngeen ne bokkut li yàlla doon digle bokkul ak li yonent bi doon digle bokkul ak li Serigne Touba doon digle mooy am sa boroom kër def ko moroom boroom kër du moroom sang la Serigne Touba daan na ko dénkaane lu baree baree bare bare kon jigéen ñi na ngeen ragal yàlla te nangoo toog seeni kër te nangoo muñ te xam ne képp koo xam ne nangu naa muñ dana am doom ju baax loo sonn sonn fi barab même borom kër bi nga àndal bu fekkee nam war a mel melu ni yow soxna si na nga war a mel boo ni melee góor góorgóorlu la la yàlla suñu borom sant nga di ko def lam la sant sa diggante sa borom kër nga di ko def fokk nga am doom ju baax dinaa koy faral di wax lu baree bari soo bëggee am sëriñu kër gi da ngay nangoo doon sunu kër gi sëriñ Tuubaa daan na ko dénkaane lu bare bari daan na wax ni kuy boole ñaar lu mën a manqué bu mu doon yii mooy na góor ga bëgg jigéen ja bëgg te góor ga tane jigéen ja kon nit foofu war ngaa gis ni yow góor gi soxna si joxuñu la ko rek ngir mu doon sab jaam soxna si dañu la ko jox ngir nga ànd ak moom jaamu yàlla sëñ tubaa daan na dénkaane ni na nga xam ne dañ la koo jox ngir nga saafara si jàngoro saafara nag bu naree jur bu naree bu naree jur tawat boobaa kon day mel ni saafara sa dootu ko jar kon borom kër yit war na noo gën a góorlu ci seen soxna yi waxal naa ne jikko yii moo yor soxna ndax soxna mooy koo xam ne suñu borom da koo bind ci faar gu dëng soo ko jubbantee mu mën naa damm waaye boo ko bàyyit mu dëng di wéy kon na ànd ak moom ci njekk su ko defee nii nga ko yore mooy da ngay yaru yor ko te bañ koo yar di ko yor bañ koo yar di ko yor mooy di ko dóor ngir la nga koy wax mu dool ko def waaye yow yaay yaru man koo yor te gëm ni kii kat daa am lu la suñu borom booleeg moom loo xam ne mënoo koo faj fu dul ci moom faneen foo ko faj dafay xaraam mooy li tax ñu jox la ko mooy daa am jàngoro joo ci saafara kon nag damay wax ni saa soo ko meree sa xel war naa dem ci bis bi nga xamante ni bis boobu nga ko jëkk a bëgg war a ak moom ngir am fonde njaboot gu baax muy njabootu lislaam ndax bu fekkee dangay ànd ak moom te xel ma daa doyadi xel ma sëgg te moom dalay tooñ jëkk laa mer fàtte démb te du xalaat suba mënoo ànd ak moom lu ci njekk kon jigéen ñi noonu la ñu ànd ak ñoom kenn ku nekk dangay nga yaru yor leen di leen muñal di leen jéggal te luñ la wax nga jàpp ni kii kat da ngaa war a ànd ak moom ngir jëmmi borom ndax bañ la koy jox amaana mënoon nañ koo jox keneen jox la ko waaye soxna seet xam ni la mu war a liggéey doomam baax ku ëllëgee koo gis xam ni lii yaayam moo ko liggéeyan moom jigéen ji moo koy liggéey ndax doom yi baax yëpp jigéen a leen jur waaye doom yi dul nag si yooyu yëpp jigéen a jur saa su neen ma wax ko léeg-léeg nga gis koo xam day móolu doomam waaye wax naa ko ci sama taarifa damaa wax ni mbooleem doom yëpp ay oto lañ seeni yaay ñooy mécanicien yi fu ñu paane xam nañ ko kon nañ góorgóorlu ba seen doom du paan nañ góorgóorlu ba seen doom doon oto yu baax nañ góorgóorlu ba seen doom doon koo xam ne ku la gis day xam naa ah, yow mi mënoo bañ a am lii mënoo bañ a am tedd nga ji ndax sa yaay la nga xam ne sonnan na ko sa kër waajur wu góor kon loolu mooy sama dénkaan ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala ci barkeb mafatihul bisri wajal jami sayyaati xasanaat wajal bi xaqaayidi mustahsanaat maanaam sunu ñaawteef yëpp yàlla na ko sunu borom soppi def ko ay rafet rafet te defal na pas-pas bu dëgër wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamina wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna